teew ñëpp ah di leen ziar di leen baal wax te di leen baal àq ah kàddu yi farata def nañ ko ba pare suñuy teewaay kese taxul yàlla dafa def ñun suñu principe moo dicté suñu lépp suñu kilifa nag dafa am lu yàlla dogal def ñuy yar ci principe bu njëriñ moo xam njëriñ mbokk daara yi moo xam njëriñ réew mi la moo xam njëriñu nit ñi la moom miy jiite ba élection yi locale yi jàllee dañoo gise waxtaan ma ne ko nag ah, foofu nga nekk ñu nekk fii waaye boo ne boo nekkee foofu ñu nit ñoo nga foofu bu ñu nekkee fii yaa ngi fi ndax dafa bokk principe bu ñu bokk te mooy dimbali nit saxal nit suqali nit ku ko gëm ci ñun moo ku ko gëmul ci ñun moo am na yoo xam ne taluñu ko sañuñu ko moo tax ba ñu yëgee yëf yi tey yaa kon farata lañu jaar fi ndax yàlla kóllëre waaye ndax yàlla principe bi ñu bokk kon nag yàlla yàlla saxal yëf yi yàlla yàlla gën a taxaw te gën a baaxee ndax nag réew mi ñu am lii rek la soxla ñu jël waa réew mi def leen priorité waaye yore réew dañu nekk ci réew mi ñooy second plan. loolu àq la kon nag ah man yàlla dafa def gëwuma ay poste principe laa moo tax dama ko ko wax lii lay fal ak lële fal du importance ki importance bi mooy nit ñi la leen di jëriñ lan la te mooy le Serigne Cheikh waxoon rek gëm nga yàlla ku la ko laaj li nit ñi soxla ci yow mooy nga nite gëmoo yàlla ku la ko laaj nit ñi soxla ci yow mooy nga nite ah yàlla ñu ko yàlla boole defal nag ci baaxam ak ci barke man ñu ngi yaakaar ñun ñëpp ak ah, bu ñu guddal guddi na ba pare te farata gi jàll na kon nag digal leen ñaanal yàlla rek mu gën leen taxawoo